Mahfouz comédien nekk na koo xam ni kenn doon ko présenté Sénégal créateur de contenu bu am solo la day def ay vidéo yu am solo temps yi ñu génn nag dafa commencé di def ay caméra cachée gis nañ fi ñu fi defoon tos gis nañ prank bi mu defoon tamit miis ak bi mu defoon sumbulu ak yeneen ak yeneen mais caméra cachée mi Sénégalais yi ñu bari dañ commencé wax ni. est-ce que yi benn jour indi daraam. ndaxte ak jëkkëram ñoom seen prank moo sokke sénégalais yu bari ndaxte saaga na jëkkër ji humilier na ko wax na ko lu ne ñëpp ñi ngi wax ni est-ce que jëkkëru ndaxte waroon naa nangu ñuy dugal vidéo bi jot na tamit Mahfouss def ay modification ci caméra cachée yi. Jimmy, Jimmy, go, go, go.